salaamaaleykum euh, bokk yand ak Touba TV Argentine ñu ngi leen di euh, gërëm ci ànd bi ak ñun di leen présenté nag ubbite jumaa wu sëriñ Basiru Diop di jumaa ji nga xam ni moom la liggéey ci dëkk bu sell bii di Touba sëriñ basiiru Diop xalifa sëriñ Mudu Masamba Diop Sam mu yemoon ak euh, ajuma ñetti fan ci weeru mai et nag ki jiite julli guni mel di sëriñ Fàllu mu Seex Abdul Xaadir Mbàkke ci teewaayu itam imam sëriñ Mamoun Bousso bi jiite jumaa yu Touba yi waaye ci teewaayu sëriñ Fallou Bousso mu sëriñ Saliou ak sëriñ Fallou Mbacké ak sëriñ Abib mu sëriñ Fallilou Mbacké ak euh, mboolem kilifa yu bari yu sant Mbacké yu ko teewe ci teewaay te mbooleem njabootug sëriñ ma Massamba Diop Sam gi yépp fépp rek fu ci kilifa nekk jóge nga fa ñëw teewee bis bu ni mel kon rek xam na dañuy àndandoo rek dal di seetaan julli gu am solo gi nga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 الله أكبر الله asalaamu aleykum.